ok léegi loolu Jersey City ngay dem léegi même adresse bi bu dee Jersey ah, ah, da ngay yóbbaale proof of address man nga copier man nga photocopier sa carte d'identité boobu nga yóbbaale proof of address Jersey City euh, nga nga inscrire mais jour bi il faut ma bindal la ko il faut nga bind ma message WhatsApp comme ça ma yónnee la jour bi ñuy ñëw Jersey City mais bu la neexee tamit. bu dee am nga pour of address te sori woo New York boo ñëwee New York man mën naa laa jàppale nga bindu ndax suba fas naa yéene nekk ci commission bi man ci sama bopp suba dinaa fa nekk mais fan ci Jersey dañuy ñëw non non dañuy ñëw Jersey City mais dinaa la xamal jour bi dinaa la wutal jour bi jox la ko gars yi boo leen xamee jour bi aussi bindal leen ma ko sur commentaire mais jouru Jersey City bi moom dinaa ko xam bu ma ko xamee rek dinaa la ko yónnee léegi nga am ko ak adresse bi voilà voilà amul problème carte de membre aussi dinaa la yónnee numéro la grand Ndiaye moom mooy chargé euh, ci loolu moom it moom mi ngi Jersey sax moom Jersey City mom boko woyé dina ko wax fexé mu déplacer wu ñew ci yow fexé nga nga nga jox ko euh, information inshallah rabbi dinañu fexé nga am bu soobee yalla jërëjëf voilà dag may yónnee message ak sa tur nga né euh, pour s'inscrire à Jersey City comme ça ma xam kan la quoi jërëjëf merci voilà gaay comme ni ma ko waxé dem len ngeen bindu ji amul yaay amul maam xam ngeen Amérique recordu ndaw si voté ki gën a màgget ki voté loon Barack Obama ñaata at la cent un ans la am téeméeri at ak benn te fàttalekuwuma ba léegi gis téeméeri at ak benn bu génn Sénégal dem bindu ji génn leen jël leen seen maam yi yóbbaale leen leen ñoom it ñu bindu maam tamit dafa war a vote gis naa benn maam ci Instagram bi moom ak euh, sëtam bu am rasta benn maam ci Instagram bi moom it yóbbaale leen ko mu voté yobale len sen maam yi yobale yóbbaale yaay ngeen yobale nijaay yobale yóbbaale doom yóbbaale jarbaat yóbbaale leen ñëpp ñu voter kenn ku nek ci yéen yobale len ñi la jege yëpp ñu inscrire c'est important les élections ne sont pas gagnées par des paroles ils sont gagnées par des cartes lo bëgg-bëgg Sonko boo ko eh, eh, eh, nga traduire ko ci ay vote amul ndariñ lo bëgg-bëgg Sonko nak ndax li may jot ci jour ah Tunkara man damaa bëgg Sonko Tunkara man Sonko rek laa gëm Tunkara du ma nelaw Tunkara Sonko Tunkara Sonko dem leen ngeen inscrire bindu ji leen yóbbaale leen seen maam yóbbaale seen jabar yóbbaale yaay yóbbaale nijaay yóbbaale papa yóbbaale tonton yóbbaale leen yóbbaale leen yóbbaale leen nañu dem bindu ji gaay l'heure du changement a sonné au Sénégal te ñoom tiit nañu ñoom fi mu ne nii tiit nañu jaaxle nañu lool ils ont peur ñu ngi ojo ci suuf naan ku ku bëgg rek ñoom dañuy juum ba di ojo ay patriotes xoolal ndaw si xoolal ndaw si APR si maa ngi leen koy bindal fii dañuy dem ba juum di ojo patriotes yi patriotes yi lañuy ñuy de naan leen waaw ku bëgg a bindu rek waaw na nga ñëw na ma jël ci suuf ñu ngi ojo patriotes yi déglu leen. ci groupe yi lañ koy dugal waaye patriote yaa ngi koy jël di ko génnee. benn bokk yaakaar bu éeyu man na soxna Fatima Diop maa ngi ñëwaat. soxna Fatima Diop bu éeyu ma Demba Yab coordinateur ci bunt bi di ko jox wàccuwaayam di rafetlu macha allah euh, communication bi am na solo rafet na. léegi may ñëwaat rek ci détails yi gën ko détaillé mooy ni képp ko am carte d'identité biométrique. carte d'identité biométrique. yow mën ngaa mën a ñëw inscrire fii pour voter. déglu déglu. léegi pour ñu xamé ko non commission bi mi ngi commencé demain euh, au niveau de Abu Dhabi mais incha allahu ils vont faire une semaine là-bas à partir du 17 ils sont ils seront ici fi lay ñuy ñëw ci euh, Dubaï incha allahu rabi kon nga xam ne ni wa jii waa Sharjah waa Ras Al Khaimah wa, Sanaya euh, comment dirais-je Alen Aldit ñu ngi wo ñëpp fépp Sénégalais nek rek nga xamné ne bu dé Dubaï mo la gëna a euh, nga nga nga na annoncé wu sa jour de off nga mën ñëw pour bindu ci fi inshallah rabbi kon nak ñuy wo massivement toute la communauté sénégalaise ñu ñëw inscrire parce que kat carte mom moy sa moy moy sa moy sa moy sa moy sa doole kon na ñëpp euh, ñëw bindu ñi nga xamné ne aussi mosuñu am carte d'identité biométrique ñoom mën nañ ma jël ci suuf su ko defee ma def benn liste pour ñoom pour ñu amagul carte d'identité ñu mën a am carte d'identité kon ñu ngi ziar ñëpp ñu jox ñëpp seen wàccuwaay ah di tàllal suñu loxo nak ku ne na ci japp massification bi na mat na ku ne jël ku ne bo jëlé ci sa côté ñett wala ñent rek ñu doli ci dana gëna baax gëna baax gëna gën inshallah rabbi kon ñu leen di ñaanal tawfiq ak tey ba ci kanam inshallah rabbi rabi. alaykum wa rahmatulah taala wa barakatuh bokki ben Benno Bokk yaakar bu yi man la soxna Fatima Diop may ñëwaat rek di indi éclaircissement ci carte consulaire yi. carte euh, consulaire deux photos ngay indi. d'identité avec photocopie passeport ou bien photocopie carte d'identité pour mon mën mën a defal la sa carte consulaire avec 20 dirhams. kon vous ko deux photos deux photos avec sa photocopie passeport ou sa photocopie carte d'identité avec euh, 20 dirhams Inch'Allah allah vous voulez bu ko que képp ku ñëw di bind photo photo yu ndaw avec sa photocopie passeport ou bien euh, carte d'identité ak vingt dirham incha allah rabbi jërë ngeen jëf tawfeex ak tayseer. waaw ñi ci ñëpp rek mu ngoog voilà jàppal ci combat bi nag tey seen yaay aay yéenay jàpp ci combat bi ñu nekk foofu ñëpp ñu d'accord rek nga jox ma seen tur ma ah, dugal leen après bu ngeen waree ñëw jour bu ngeen waree am ndax le 17 lay commencé léegi jour bu ngeen amee offre bu ngeen di ñëw da ngeen ma koy wax su ko defee ma préparé seen pass bu ngeen ñëwee ma jox. a leen su ma ñëwee jox ko. gars yi concentré wu leen nañu concentré wu sur l'essentiel li ci des ñu bàyyee leen ko ñoom nañu bindu na sénégalais yi bindu massivement groupe yi ñuy woote dugg leen ci biir groupe yi ne leen ma ni dama bëgg a bindu bu leen ne ànduma ak yenn bu kenn wax ku mu àndal ne parlez pas de vos appartenances politiques bàyyi leen t yi ci kër ga bayilen t-shirt sonko ya kop sonko ya mbaxana sonko ya ci kër ga te ngeen dem bindu ji dem len bindu ji heure bi du heure fo far dem len ngeen bindu ji ñom xam nañu gi jiiriir wala heure bi jarul wane fo far parce que ñom ci ay njuj ndaj lañuy dox waye ñun ci ay réalité lañuy dox gaay ngi di gërëm ñep dina ñëwaat nak defal len ben live exclusive ci affaire bracelet yi ñuy takkal nit ñi ci tànk nee naa leen bracelet yooyu dafa am tappale bu rëy bu ci juddu ndeke ñoom bracelet yi nee nañu benn bu ne trois millions lañ ci fay déglu leen ma de bracelet ñoom nee nañu benn bu ne trois lañ ci fay xam ngeen bracelet yi lu muy jar moins de cent mille francs CFA parce que détail mi ngi jar deux cent soixante neuf euros Alibaba vidéo baa ngi circulé yéen a ngi koy gis mais en gros prix en gros mi ngi jar cent soixante mi ngi nii am ko xaar ma indil len prix en gros may leen ma ma ñëw may ma may ma ma indil len ko léegi incha allah damay juum ndax nekkul ci sama beneen téléphone bale bu fa nekkee dina ma sonal voilà bracelet baa ngi nii léegi bii mooy bracelet bi boo leen xoolee bracelet bi mi ngi nii moo nekk nii xool leen prix bi en gros mi ngi nekk cent soixante moo nekk nii cent soixante dollar la cent soixante dollar Alibaba en gros en gros parole lii GPS parole parole GPS mi ngi nii bracelet bi mi ngi nii moo nekk nii cent soixante dollars lay jar wholesale en gros léegi même bracelet boobu mi ngi ni encore ba léegi cent soixante dollars en gros yéen a ngi koy gis moo nekk nii bracelet bee nekk nii cent soixante dollars lay jar en gros léegi le même bracelet ñoom nee nañu ma indil leen ko fii ñoom euh, ba léegi nee nañu bracelet bi détail patriote yi indi nañ ko muy jar bracelet bi en détail muy jar deux cent soixante euros détail détail xaar leen ma indil leen ko may leen ma détail détail mi ngi jar deux cent soixante euros détail ok bracelet bi mais bracelet bi du prix bi moo ñu sonal mi ngi nii ah, Ali Express tey dañu ñëwoon rek pour wan leen bracelet électronique yi détail nga xamante ne moom lañ ne moom la ñuy takkal prisonniers yi Sénégal comme ni ngeen ko gisee Sénégal bracelet bu mel nii la ñu amee couleur bi rek moo leen uutale mais li ci am mooy que bracelet bi booy xool ñu ngi ko jaayee deux cent soixante trois virgule quatre vingt douze pounds lii boo ko doon xool à peu près matul sax deux cent mille ay cent quatre vingt mille yooyu la. cent quatre vingt dix mille. donc lii nag prix en gros la. prix bi mu joxe nii prix en la. mais bo démé détail ami prix détail la joxé bo démé en gros unité bi mi ngi jar moins de 100 000 francs CFA té xam nga ñom ñaata pièces lañ ci commander 2000 pièces 2000 pièces xam nga kan lañu jox contrat bi goro aïssata tal sall ministre des affaires étrangères gorom la ñu jox contrat boobu xam nga kan moo bokk ci contrat boobu ba ñu koy joxe l'ancien ministre de la justice Malick Sall moom la ñu bëgg a def actuel ministre pétrole moom lañu ñu bëgg a yóbbu jox ko pétrole bi déglu leen ma Sénégal nag dafa neex de maki sàll ka mu def ci pétrole bi xaritam la fi mu toll ni jigéen la mais Malick Sall la bëgg a yóbbu ci pétrole bi pour ñu accaparer pour ñu mën a accaparer pétrole bi waaye gisaguñu dara ñu ngi leen di xaar dem leen bindu ji rek incha allah dinaa ci ñëw def live bu saf-saf voilà fi mu toll nii nag koor gi xam nga rek bu ñu jëlee énergie bi yëpp joxe ko léegi damay ragal ne balaa journée bi di euh, jeex ñu commencé xam ak ximmi di daanoo yaaseeg yu kenn xamul gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm incha allah ba ci kanam wa salaamu